الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن yéen a ko doon xaar nee na ñëw na ko koy Taif TV ku ne Taif sam xel dem ci lu taaru lu rafet lool kon man naa wax ni tur wi jël na boroom Taif TV mbokk yi soo ko amee sa kër ba sa smartphone dara duutu la ump ci àdduna bi rawatina diggante Sénégal ak Gambie ndax chaîne de télévision boo bëgg programme bu mu mën a doon am na fa. wool Serigne Mbacke Diouf ci 917 535 14 03 917 535 1403 wala 917 671 0019 917 671 0019 ngir am ci information bu gën a leer. jëndal sa box Taif TV def sa abonnement moo xam benn weer juróom-benn ba cim at ci njëg goo mënta am fenn yéen ñi sport soxal ci box TV ngay gis ne dara duutu la raw. moo xam ci wàllu sport rawatina yenn fans de football yi Liga baa nga fa Europa ba ak Champions League bi xam ngeen ne Coupe d'Afrique 2019 mi ngi ñëw Taif TV nee na amal na leen promotion bu mucc ayib ku ci bëgg am lu gën a leer wol Serigne Mbacke Diouf ci 917 535 14 03 917 535 1403 wala 917 671 0019 917 671 0019
bismillahi rahmaani rahim mbokk yu tedd yi déglu ICFA rajo fii ci WPAT 930 AM di ñu déglu itam ci suñu website icfaonline.com icfaonline.com wala ci 616 597 10 30 616 597 10 30 24/7 24 heures sur 24 loolu nag bu mënee am gannaaw ndimbalu yàlla mbootaay gii di Islamic Cultural Foundation of America di jàkka yii di masjidul muhajirin wal ansar fii ci Staten Island ca 740 Delafield Avenue Staten Island New York 10310 moo tax mu mën a am jàkka ji nag service yu bari lañ fi jagleel julliti àdduna rawatina julliti Amérique rawatina julliti New York five daily prayers muy julli juróom juma ak service ya ca topp vikar si àjjuma weekend programmes pour xale yi ak after school programme bu ñuy mën a defee seen homework di jàng tamit alquran arab ak islamic studies ànd ak lectures yu bëree bëri yu ngeen mën a bénéficier ci mbootaay gii di Islamic Cultural Foundation of America moo xam ngeen nekk sur place wala ngeen nekk à distance à travers la rajo wala suñu chaîne télévision bi ci YouTube bi ñuy ñaan ñëpp ñu subscribe maanaam abonné ci ngir mën a bénéficier ci lectures ak xutba yiñ fay dugal yépp dem leen youtube.com ngeen search ICFA TV ICFA TV ngeen mën a am lépp loo xam ne luy jógee ci mbootaay gi la te ànd ak njëriñ yii nag mbokk yi mënul am mukk gannaaw ndimbalu yàlla te jullit yi bokkuñu ci maanaam jàppalewuñu ku ci bëgg a jàpp na dem ci ICFA online dot com slash donate ICFA online dot com slash donate wala ngeen dem ci paypal dot me slash ICFA paypal dot me slash ICFA wala ngeen yónnee seen ndimbal ci 100 maanaam ci PO box bi 100222 Staten Island New York 10310 wala ci adresse u jàkk ji nga xam ne tudd nañ ko mën ngeen ñëw woo ci 718 448 5252 347 596 20 36 ICFA ubbil na buntam képp koy wax ashhadu an la ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah jërë ngeen jëf
Êtes-vous un immigré Avez-vous une assurance médicale Avez-vous besoin d'un médecin Savez-vous où aller Courez-vous le risque de contracter l'infection du VIH ou les hépatites B et C Les maladies ne présentent pas toujours de symptômes. Laissez African Services vous aider. African Services Comedy offre des tests gratuits et confidentiels pour le VIH, l'hépatite virale, le diabète, la tension artérielle et les maladies sexuellement transmissibles. On peut vous aider à trouver des soins médicaux à bas prix sans tenir compte de votre statut d'immigration. African Services est ouvert du lundi au vendredi de 9h à 16h30 au 429 Ouest 127 Street à Harlem. Peu importe votre statut d'immigrant ou votre solvabilité, vous n'avez pas besoin de prendre un rendez-vous. Nous parlons français, anglais et la plupart des langues africaines. Pour votre bien-être et celui de votre famille, venez faire votre test. Ayez la conscience tranquille. Appelez le 212 222 38 82 ou visitez notre page internet www.africanservices.org pour plus d'informations.
ونعمك لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك jël feeri cross river jëm Harlem di wuti ñam jeex na yàlla ak Adja African restaurant mi nekk ci 226e street Bay Street ca Staten Island téléphone am di 347 934 30 01 yéen mbokki Staten Island madame Touré nee na tàggale nee na coono baagante bi ndax Adja African restaurant bii mu leen ubbeel ci seen wet lii di ceebu jënam boobu yàpp suppu kànja maafe yaa sa suluxu mbalax amul fenn reer ba moom bu la ko kenn nettali ndax seen poisson braisé poulet braisé pentade ba seen dibi doo ko gis fenn ci li war lu yor ku ne Amérique ne coono kese seen suppu kànja mbokk soo ko mosee billaay fu waxtu wu jotee nga dem doo ko manqué. Adja African restaurant mi nekk ci 226e street Bay Street Staten Island téléphone bi 347 934 30 01 madame Touré nee na ñi daan gàddoo ñam jóge Harlem wutasi ci île bi ñoo ñeelu ko ubbil jaaraama yaa Adja ku weddi li may wax laajal waa ICFA bu imam Sakho mbokk sooy dem Adja African restaurant sañseel ba jekk ndax place ba macha allah xale ya nga fay fekk taaru nañu civilisé nañ te mën nañoo toppatoo gan dem leen ci 226e street Bay Street Staten Island ba ngeen woote ci 347 934 30 01 di ngeen lekk di ngeen naan mu res ak jàmm.
لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك الحمد والنعمة لك الملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك الملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك الملك لا شريك لك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك الملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك الملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك الملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك الملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك الملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك الملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك الملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك الملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك الملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك الملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك الملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك الملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك الملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم dafa mel na la baykaal nit ñu ba yaram yi tàng mel ni tey biidnillahi tabaraka wa taala yu bëgg ñëw ak yéen ci xeeti aj yi di njëkkee aj bu ñu tuddee livrade xam naa boo ko waxtu wi maye daañu ñëw ci yenn détails yi xaj xam nga xaj ñetti façon la ni ñu ko yonentu jàngalee sallallahu alayhi wa sallam ndax boo defee listiqra ci ahadis yi ci wàcc da ngay gis ne yonentu alayhi salaatu wassalaam dafa xarmal lifraat xaj kese am ñu ne gannaaw ga dugal na ca umra wante ca makka mu digal saxaaba yi ñu def tamattu kon ñett yëpp dikk na lifraat mooy aji ajji xarmal xaj rek bu sottee boo neexee mu def umra gannaaw xaj bu ko defutit dara du ko ca fekk te dafa mel ni sax bu dul woon jafe-jafe boroom xam-xam yi ne boobu lañu préféré ndax maalikiyatu ak shafiiya ñoom dañu wax ne lifraat moo gën ñu lëngal ne moom la yonent bi def boroom xam-xam yi it solo ne xulafaawu rashidun bu ñu xoolee seen xaj yi seydna abu bakar lifraat la def du umra mukk boole koog aj seydna omar nekk na ci xilaafa gi fukki at lifraat la def seydna usmaan nekk ci xilaafa gi fukki at ak ñaar lifraat la def mu mel na dañu daan beral umra beneen voyage boo defee ñi lëngal ne lifraat a gën teg ko foofu suñu mbokk xanaabilatu yi ne xiraan maanaam tamattu tamattu moo gën ndax moom la yonantu bi sallallahu alayhi wasallam digle moom la mu jëngee ju def suñu mbokk axnaaf yi ne xiraan a gën ndax dangay boole ñaar yëpp nga am nga neelu aj am nga neelu umra bu ci mënta nekk rek baax na waaye ci gàttal kiy def lifraat naka lay xajee kiy def lifraat bu yeggee ca miiqa ma muy xarmale te tey li ëpp ci ñiy jógee Sénégal ak ñu bari ci ñiy jógee Amerika Madinatul Munawwara la ñoo njëkkee su ko defee nga def say ziyaara ak sa yooyu yooyu yu am solo yooyu waaye yépp bokkul ci aj gi soo génnee Madina nag am na barab booy jot booy génn Madina rek ñu di ko tuddee ab yaaru ali waaye Dul Xulayfa la ko yonent bi tuddee woon sallallahu alayhi wa sallam mi diggante ab yaaru ali ak Makka mi ngi nekk quatre cent cinquante kilomètres mu am ngëneelu moo gën a sori ci meq yi mu am ngëneelu sooy génn ci xaramu madina rek dugg ci xaramu xaj nga boole ñaare xaram mu am ngëneel loo xam ne nag moo gën yooyu yépp mooy mi xam yonent yàlla muhammad ma sallallahu alayhi wa sallam soo yeggee yow miy def lifraat ab yaaru ali lañ koy tuddee te yonent tuddee ko dul xulayfa li ngay def mooy nga setal sa bopp lanay setal sa bopp mooy loo am ci we daggal loo am ci karaw gudut kawari bopp moo xam pokkutaan la moo xam naq la wëtal bu dee kawaru bopp nag dañ bëgg nga bàyyi ko ndax nga am loo wat ca aj ga lellil wey daggal karaw yi lépp loo xam ne tilim la ci sa yaram nga dindi ko boo defee nga sangu sangu moo xam ne dafa mel ni boo doon sangu sangu farata dafa mel ni boo doon sangu sangu farata xam ngeen ni ñoo sangoo farata eh, jàpp benn boo yéene file dégg nga raxas barabu sobe waaye loolu ci fu bu amee sobe la jàpp benn benn file dégg nga boo yeggee ba ca bopp ba gis nga ñetti xasayaat ya raxas wàllu ndeyjoor soog a raxas wàllu càmmoñ raxas kaw yaram soog a raxas suufu yaram Eh, njàpp sa- sangum moomu nag eh, ku ku mënta julli sax ndax mbërëk walla deretu gësin du tere mu sangu ko moo lay wan ne sanguma du pour julli waaye sangum xarmal mi la xarmal mee ko moom li ciy tegtal mooy eh, bu amutoon moom boo amuloon ndox duñu sang duñu tiim pour armal waaye dañoo tiim pour julli kon moo lay xamal ne sanguma du sangu du sangu eh, julli ndax konoon yonentu sallallahu alayhi wa sallam du eh, digal sayyidatuna isma bintu umays jabaru eh, soxna sayyiduna abu bakar ba mu amee doom ca yoonu aj ga du ko wax ne ko na nga na bal nga sangu ji daf ko wax mu mu sangu te ma nga am deretu gësin mu ne ko itamit na nga def lépp lu aji aj di def wax na ko ndey Aïcha tamit ba mu des tawaaf boo defee kon li ngay njëkk a def mooy fexe ba fu tilim ne ci sa yaram nga dindi ko fu wen nekk ci sa yaram nga dagg ko fu karaw nekk nga dindi ko ba mu des karawu bopp nga sangu sangu farata bu set wécc nga ragg nag waaw nga ragg ndax ñetti sangu ñoo ëpp solo ci sangu aj sangu mi ngay sangu pour armal ak sangu mi nga sangu pour dugg mag ah nee ñu sangu ma sax tawaafa ko moom waaw nee ñu tawaafa ko moom ak sangu mbësu arafat ak sangu mbësu arafat boo sangoo ba noppi nag nga daal di jël sa ñaari malaan bi ñu ko tuddee tërëxlaay bi ñu koy tuddee làmbaay bu dee góor waaw nga nga nga nga nga sol ko gis nga summeeku nga ci lépp ba ci sa malaan yi boo boo boo solee loolu eh, eh, eh, nga nga nga nga jiital nga jiital sol loolu laal lës ko lañ lës ko lañ nga gëttu ndax yonentu sallallahu alayhi wasallam dañ ko gëttal waaw boo sangoo ba pare nga gëttu waaye nag eh, eh, boo xasee sol yére làmbaay yi bul gëttati ndax bu ñu bëgguñu gëtt gi laal yére xarmal yi nga yi nga xarmale su fekkee dafa desoon ci yaram wi nga xarmal dara nekku ci waaw yegg nga ci miiqa Dul Xulayfa yow miy def lifraat dindi nga bépp tilim ci sa yaram eh, sangu nga ba set sol nga sa ñaari malaan yi nga xam ne moom nga nderexlaayoo bu dee jigéen sol nga eh, yére yu jot yoo xam ne dana muur sa yaram yépp ba mu des sa kanam bu dee góor nag mënuloo muur sa bopp jigéen da nga war a muur sa bopp dindi nga lépp loo xam ne luy peg sa yaram la dégg nga moo xam yëre la moo xam lu moo lumu ci yi peeg wala ci yi ñëw yi ñëw waaw ma xiit ñi di ko tuddee mu xiit soo defee loolu ba pare eh, bu fekkee da ngay soloon ay dàlli bot wala ay sang wala yu mel noonu yow góor nga dindi ko nga dindi ko sol carax waaw gu jigéen nit mu moytu lu mel ni eh, gant ak luy muur kanamam moytu ko dañ ko koy tere dañ ko koy tere am na ñu ne sax soo gisee góor nga nëbbu sa kanam ak yooyu waaye du du nju du njubal yonent bi moom sallallahu alayhi wa sallam waaw donte borom xam-xam yi wax nañ ci yu bari di tegtaloo ca ndey Aïcha toog yu mel noonu la waaye loolu beneen beneen waxtaan la soo defee nan ngay def yow mi nga xam ne yaa ngi bëgg dugg ci aj gi bu dee góor nga sangu nga sol nga sa ñaari malaan bu dee jigéen nga sangu nga sol nga sa yére yu rafet nga julli ñaari rakaa walla bu fekkee dafa tombeek jullik farata nga julli jullik farata soo noppee fi nga toog di fi nga jullee bu la neexee nga xarmalee foofu su fekkee danga war daaba wala oto bu la neexee nga dugg ci daaba ji wala ci oto bi soog a xarmal su fekkee dangay dox bu la neexee nga armal ànd ak dox ba armal nag yéene la gi nga yéene ci sa xol ne yow sama ne yow aji aj gi yéene nga ne dangay aj ngir yàlla subhanahu wa taala waaye li yéene bi nag dafa ànd ak wax dafa ànd ak wax lenn ci borom xam-xam yi ñu ne wala mu ànd ak jëf juy wane ne yéene nga boo defee yow mi def lifraat da nga naan labbayk allahumma xajjan labbayk allahumma xajjan wuyu naa la ak wuyu yow sama borom yéene xaj kott waaw maanaa kottaloo aj gi tuutaloo ko waaye dangay wane ne boolewoo ko umra jiitaloo umra bi nga waxee loolu nag ca saase rek nga tàmbali labbayk allahumma labbayk labbayk la sharika laka labbayk inna alhamda wannicmata laka walmulk la sharika lak labbayk allahumma labbayk labbayk la sharika laka labbayk inna alhamda wannicmata laka walmulk la sharika lak labbayk allahumma labbayk labbayk la sharika laka labbayk inna alhamda wannicmata laka walmulk la sharika lak لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا
waaw baax na comme dañuy détaillé baax na ñu détaillé la bi ngay julli ñaari rakk yi lan nga cay jàng ndax su dee mbooloo la iliman ja bu dee farata la mooy jiite bu dee yow kenn la nag te ci malikiyatu yi dañuy wax ne nga jullil ko ñaari rakk yoo ko jagleel eh, sunna la bu ko defee ñaari rakk yooyu nag comme ñaari rakk yuñ la santati ci biir aj gi dañu bëgg nga jàng ci suratul fatiha ci rakk bu njëkk bi ak suratu qul yaa ayyuhal kaafiruun suratul fatiha ci rakk ñaareel bi ak suratu qul huwallahu ahad soo sëlmalee nga yéene fi nga toog wala ci sa biir oto wala ci kaw daaba yi wala su fekkee da ngay jox dox jëm màkk te foogatuma ne am na ñu koy def nga daal di ne labbayk allahumma hajjan foofu nag ngay jooroo naan labbayk allahumma labbayk labbayk laa sharika lak labbayk inna alhamda wa nicmata laka wal mulk laa sharika lak yaa nga wuyu si yàlla woote boobu mu woote loo woon seyduna ibrahim woote loo ko seyduna rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam wa adin fi nnaasi bilxaj yaatuuka rijalan wa ala kulli daamirin wa ala kulli daamirin yaatiina min kulli fajjin camiqin li yashhaduu manaafica lahum labbayka jooju nag saa yu mbir beesee rek bamtu ko soo tasee mbooloo dégg nga soo nekkoon ci oto bi di nelaw ba ci kanam nga yeew su julli jotee nga julli boo sëlmalee labbayk imam malik sax nee na booy wax labbayk allahumma labbayk labbayk la sharika laka labbayk ci malikiyatu nee nañ ku la nuyu yàq kii nodd bokk atte doo ko fay ndax amu solo li ngay wax waaw dégg nga di ko baril di ko baril soo demee nag ba gis néegi màkk yi ni ko góor ga waxee fa ida wadal ida wasalta lil buyuti fatruka talbiyatan wa kulla shuglin wasluka lil beyti min baabi salaami wastalim alxajara laswada fiha wastanim soo yeggee makk nag nga taxaw bàyyi la bayka yi nga soxlawoo néeg ba bu doon ca jamono ba muy mën a nekk dañ lay wax ne nga sangu ca Dhutwan ndax foofu la yonentu sallallahu alayhi wasallam sangoo woon booy dugg màkkee nga duggee Kadathaniya waaye tey yaa ngi ci bus bi moo lay wax fi ngay duggee ku ñuy wata du tàmm fu ñu koy jaarale ni ngay def mooy bu bus bi yegg see Makka ba yóbbu la sa hôtel yow jàppal ne foofay sa Kadathaniya demal nga sangu sangu bu woyof nga préparé wu pour jëm ca néeg ba soo koy boo yeggee ca néeg ba na nga duggee baabu salaam danañ ko tuddee baabu ba ni cheybata nga tudd ndax fa la yonentu sallallahu alayhi wasallam duggee woon soo ko mënut bunt bu gën a jekku ci yow lu tax ndax kilifa dañuy wax ne de duñ ko ñëwee gannaaw duñ ko ñëwee gannaaw te kiñ duggee kaaba gi baabu salaam dafay mel ni mi ngi mi ngi dug mi ngi duggee mi ngi yegsi ci kilifa gi janook moom ah ndax boo ñëwee rek da ngaa dem ca xajarul aswad waaye su mënul nekk ah nga def li nga mun a def waaye xikmatu ci nga duggee baabu salaam mooy nga janook kaaba gi comme ni ngay janoowee kilifa boo koy dikkal doo ko bett doo ko ñëwee gannaaw te kaaba gi nag dafa am buntu te buntu ba mooy xajarul aswad te xajarul aswad mooy ndeyjooru yàlla subhaanahu wa taala moo tax ba Seydina Omar ne xajar bi dama gis yonantu mu di la fóon rek moo tax ma fóon la waaye xam naa ne amuloo njëriñ mënuloo lor Seydina Ali ne ko ah kay am na njëriñ mën na lor waaw am na njëriñ mën na lor wax yamu wax ca xajar ba yépp ndax yowmal qiyaamati bu xajar xajar bi dafa seedeel képp koo xam ne mos nga ko fóon xam nga loolu njëriñ la yal nañ ci yàlla boole bi barakati rasulillahi sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallama boo yeggee nag ba sippi say bagage ba sangu ba yegsi ci kaaba gi booy janoo kaaba gi rek ñaanal ndax barabu nangu ñaan la dégg dégg nga booy yegsee li ngay njëkk a def mooy tàmbali tawaaf doo ko doo nuyoo kaaba gi ñaari rakk xam nga jàkka jàkkay makka mooy ndey jàkka yépp te jàkk boo fay dugg ñaari rakk nga koy nuyoo waaye jàkka ji moom doo ko nuyoo ñaari rakk tawaaf nga koy nuyoo comme da ngay aj si xajuk lifraat tawaaf boobu ngay wër moom la ñuy tuddee tawaaful qudum moom la ñuy tuddee tawaaful qudum wala the arrival tawaaf comme dañoo bëgg wane yoon bi ñu bañ a taxaw ci détail ci atte beeg ci charte yeeg ci nangam mi nañ la wax rek ni nga koy defee du dégg waaw boo yegsee nga fóon doj bi ak sa gémmiñ soo ko mënut nga jël sa loxo nga teg ci teg ci sa gémmiñ waaye doo ko fóon soo ko mënut boo amee ab bant wala yet nga teg ko ci dégg nga fóon maanaam teg nga fóonee ko yet bi soo ko mënut nag nga wax allahu akbar ñii ne bismillahi allahu akbar ñii ne nga yëkkati sa loxo waaye nga wax allahu akbar loolu ñëpp daje nañ ci nga tàmbali nag wër kaaba gi fekk kaaba gaa ngi ci sa càmmuñ fekk kaaba gaa ngi ci sa càmmuñ nga wër ko juróom ñaari yoon ñett yu njëkk yi yow góor danga koy cal ànd ak sa mbaggum ndeyjoor mi doo ko muur danga koy dindi danga koy wuññi loolu la ñuy tuddee littibaaw jigéen nag du cal du wuññi mbaggam ndax awra la ñeenti yu mujj yi nga dox ko ñett yu njëkk yi nga cal ko yow góor wuññi sa mbaggum ndeyjoor ñeent yu mujj yi nga dox ko amul genn ñaan goo xam ne moom lañ ko jagleel lu dul ñaan ga nga xam ne moo nekk ca diggante ponk ba janook yaman mooy coin bu mujj ba balaa nga yeggaat xajarul aswad foofu diggante mag xajarul aswad yonentu daan na fa ñaan ñaan gu am solo ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار yow yàlla maa ngi laa ñaan yiwu àdduna ak yiwu àlaxira comme yonent bi nag moo mën a ñaan te nee nañu nañu aje na mu daan aje nañ ca boole ñaan goog ndax ñaan yooyu ñaan la yu nga xam ne duñ fi jóg mukk ndax asamaana ko tudd alquran wax ko rabbana atina fi dunia xasanatan wa fi laxirati xasanatan wa qina adab annaar ñaan gu am solo la ñu bari dañ koy xeeb waaye boo ko xasee wax daanaka amatuloo looy kebetu wax nga yàlla li nga bëgg yëpp yiw yëpp mi ngi ci xasana fi dunia yiw yëpp mi ngi ci xasana fi laaxira waaye ñaari pilier yi njëkk ruknul yamaan yi nag ñu leen di tuddee ashaamiyaan nga xam ne ñoo janoog shaam yooyu doo fa taxaw doo leen doo leen doo leen doo leen fóon doo leen laal waaw ruknul yamaan yi nag moom boo fa yeggee nga teg ko sa loxo nga teg ci sa gémmiñ doo ko fóon nag bokkul ak xajarul aswad xajarul aswad da ngay fóon ak sa gémmiñ soo mënul nga teg sa loxo teg ci sa gémmiñ soo mënul nga wut yet boo boo ko mënul nag nga ne allahu akbar dem bii da ngay jël sa loxo nga teg ci dégg nga teg ci sa gémmiñ bu ko defee loolu la ko yonent sallallahu alayhi wasallam def boo ko mënul mu mu mu mu wàcc la boo yegg seewaatee ci xajarul aswad am nga benn nga ñëwaat am nga ñaar nga ñëwaat am nga ñett nga ñëwaat am nga ñeent nga ñëwaat am nga juróom nga ñëwaat am nga juróom benn nga ñëwaat am nga juróom ñaar bi nga amee juróom ñaar nag nooy def dangay randu dem ba ca gannaaw maqaamam suma baay ibrahima ba alayhi salaam nga julli fa ñaari rakaa maqaam boobu fa la Seydina Ibrahim taxawoon di tabax kaaba gi ca gannaaw moo gën soo mënta taxaw ca gannaaw ngir xataay ba foo jullee ci jàkk ji ñaari rakaa mu baax ñaari rakaa yooyu nag comme tawaaful qudóom bi comme la bayka gi nga xam ne moom nga tàmbalee dafa bokk ci waajibaat yi nga xam ne soo leen bàyyee dang leen di jangee deret ni ko waa kër imam malik waxee ndax ñaari rakkay am nañu ko def sunna rek waaye ci maliki yetu yi dañ ko boole ci ñaari ci ci waajibaat yi nga xam ne ndax am na ku ma laaj fan yële farataay ak ñaata la ma ne ko ñeent la ak fukk ak benn ci ngiram malik mu ne ma luy loolu ma ne ko dafa am ñeent yoo nga xam ne kenn mënu leen remplacer suñu ñëwut aj gi du baax muy lixraam dox safa ak marwa ak taxaw arafa ak tawaaful ifaada waaye nag am na fukk ak benn yoo xam ne ba góor ga ca ibnu ashir lim na ko wal waajibaatu gayru lërkaani bi dem xad jubirat minha tawaafu man qadim wa wasluhu bissayi mashun fihima wa rakaat altawaafi in taxattama nuzulu muzdalifa fi rujucina mabitu laylatin thalathin bimina ixraamu miqaatin fa dul xulayfa لطيبة للشام ومصر الجحفة قرن لنجد ذات عرق للعراق يلملم اليمن يأتها وفاق تجرد من المخيط تلبية والحلق مع رمي الجمار توفية ma ne ko fukki yaag benn boo ci bàyyi rek deret war la ñaari rakk yi ñu tudd boole na ko ci waaye ñaari rakk yooyu nag bu fekkee tawaaf ba mu topp tawaaf bu war la te tawaaful ko doom tawaaf bu war la tawaaful ifaada tawaaf bu war la waaye tawaafu tàggatoo nag dafa war ci shafiiyatu waaye ñun ci malikiyatu yi sunna la des ko sopp soo ko defulit du yàq sa aj deret du ca war kon ñaari rakka gannaaw tawaaful wadaa du waral deret waaye ñaari rakka gannaaw tawaaful qudum soo ko bàyyee wala ñaari rakka gannaaw tawaaful ifaadati dafay waral deret kon nag boo noppee ci kaaba gi nga dem ca gannaaw maqam ba Ibrahim nga julli fa ñaari rakaa soo noppee ca ñaari rakaa yooyu bu fekkee mën nga yegsiwaat ci foofu ñuy tuddee multazam mooy espace boobu nekk diggante xajarul aswad ak buntu kaaba gi barabu nangu ñaan la nga def fa ñaan soo ko mënul nga tolloog moom rek def fa ñaan soo ko mënul foo mën a defee ñaan nga def ñaan soo paree nga ñëwaat ci xajarul aswad su fekkee am nga ci accès nga fóon ko soog a fóon googu nag bokkul ak fóon gu njëkk ga ndax fóon gu njëkk ga fóonu tawaaf la woon wala fóon yu njëkk ya fóoni tawaaf la woon fóon gi nag ñu ne mooy sunna bi njëkk ci sunnaay dox safa ak marwa bu ko defee na nga jógee foofu jëm safa ak marwa di nga gis zamzam ci yoon bi nga naan ci zamzam bi boo yeggee safa nga def na yonentu sallallahu alayhi wasallam mi nga xam ne moom la ñu sama borom royloo defo defo mu jubee safa yéeg ci kaw safa ba nekk ci position boo xam ne mi ngi janoo ak kaaba gi waaw daal di ne ma tàmbale fi sama borom tàmbale jàng laaye ja inna safa wal marwata min sha'airillahi faman xajja albayta aw ictamara fala junaxa alayhi an yatawafa bihima wa man tatawaa xayran fa inna allaha shakirun alim soo mënee jàng laaye ji ni ko yonent bi jàngee woon nga jàng ko te naqadiwu la jàng waaw ay jàng ci suratul baqarati ñi ngeen di àndal ñuy aji yëpp dinañ leen ko mën a jàngal soo ko mënul nag lii bum la raw ñetti kabari yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ndax yonent ba muy defee loolu ba pare daf ne allahu akbar allahu akbar allahu akbar walillahi alhamd dégg nga allahu akbar am na ñuy topp alama hadana waaye yonent bi daal kabbar na ñetti yoon wax laa ilaha illa allah waxdahu la sharika lah lahu almulku wa lahu alhamdu yuxyi wa yumiit wa huwa ala kulli cheyin qadir wala lahu almulku wa lahu alhamdu wa huwa ala kulli cheyin qadir laa ilaha illa allah waxdah sadaqa wacdah wa nasara cabdah wa hazama alaxzaaba waxdah dégg nga de laa ilaha illa allah wacdah waxde sadaqa waxde wa nasara abde wa hazama al axzaaba waxde am nañu ca yokk yeneen waaye nga wax lii kabbar ñetti yoon wéetal yàlla tabaraka wa taala ñetti yoon ñetti yoon yooyu nag ci diggante yi yëpp dafa am ñaan soo ne allahu akbar ñetti yoon laa ilaha illallah wahdahu la ba mu jeex nga def ñaan waxaat ko def ñaan waxaat ko def ñaan soog a wàcc nag jëm jëm marwa soo yeggee marwa am nga benn soo ñëwaatee safa am nga ñaar soo yeggaatee marwa am nga ñett soo ñëwaatee safa am nga ñeent soo yeggaatee marwa am nga juróom soo ñëwaatee safa am nga juróom benn soo yeggaatee marwa am nga juróom ñaar waaye boo jógee nag safa nga jëm marwa nooy def am na lu ñuy fu ñuy tuddee batnal masil tey moom la ñuy tuddee baynal miilayin moom la wala ñaari green light yi boo fa yeggee nga cëkk maanaam nga gaawal sa dox yow mi nga xam ne nag dang ay aj te góor nga bu dee jigéen sàkkuwuñ ci moom gaawalub gaawalub dox lislaam ku bari yërmande ci ci jigéen la yow góor it soo àndeek jigéen ñoo xam ne mën na am soo leen rawee du du du du du du ñu mën a def la ñu war a def ñaara am nga daw ba pare nga yéexal sa dox xaar leen su fekkee loolu mënta nekk nga ñàkk daw tax du ko yàq waaye soo ko mënee mooy sunna yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam saa yoo tolloo ci diggante jigéen laayit yooyu nga gaawal dox bi soo yeggee marwa it nga janawaat ak kaaba gi wax la nga waxoon ca safa saa yoo yeggee safa def ko saa yoo gàttee marwa def ko ndégam mën nga ko léeg-léeg nag dafa xat ba nga xam ne duñ la ko sax may kon nga gis ne di nga taxaw ñeenti yoon ci safa di nga taxaw ñeenti yoon ci marwa waaye dox bi juróom-ñaari yoon lay doon maanaam dox yi juróom-ñaari yoon waaw soo mënee dox ak say tànk moo xam ca tawaaf jël moo xam ca safaak ak marwa bul wut chaise bul war ci malik yotu yi su fekkee ne danga mën a dox wala ba pare war dangay fay deret mashyun fihima loolu la wax wa rakaat tawaafi intaxattama su fekkee nag pare nga fii nan ngay def li ngay def mooy nga dellu ca barab ba nga dal bés bu nekk fexe loo mën ci jaamu yàlla nga di ko def fexeel di jullee si julli yi juróomi ci kaaba gi fexeel yiw yoo mën a màng nga màng ko waaye nag comme lifraat ngay def doo yeewee ko da ngay rester ci sa ihram maanaam yiñ la tere woon dagg karaw ak dégg nga laal parfum ak dégg nga laal nu mu tuddati dagg week yooyu yëpp da ngay rester ci ñu tere la ko sol yu ñu ñëw yow góor gi da ngay rester ci ñu tere la ko da ngay rester ci sa xarmal yow jigéen ji da ngay rester ci sa xarmal ba bësub gannaaw suba la tabaski muy juróom-ñetteelu fan ci weeru tabaski bi foofu nag ci ngay ànd ak ujaaj yi jëm minan ni nga xamee ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam def na ko ñu bëgg nag tisbaar fekk la fa nga julli fa tisbaar ci wàññi ci waxtoom julli fa tàkkusaan ci wàññi ci waxtoom julli fa timis kenn du ko wàññi julli fa gee ci wàññi ci waxtoom julli fa subaay tey la ba suba arafaat suba it kenn du ko wàññi maanaam juróomi julli yooyu ngay julli ba su juróom ñetteel ba ci tabaski muy yow mu tarwiyati muy bësu suba la arafa juróomi julli yooyu boo ko fa defee juróomeel ba mooy subaay tay la arafa bu ko defee ni ngay def mooy lan mooy nga jógee minan bësu arafa bi jëm fan arafat bi ngay dem arafa nag boo mënee labbayk allahumma labbayk labbayk laa sharika laka labbayk inna alhamda wa nicmata laka walmulka laa sharika laka defal soo mënee laa ilaha illa allah waxdahu laa sharika lah lahu almulku wa lahu alhamd yuxyi wa yumiit la lahu almulku wa lahu alhamd wa huwa ala kulli cheyin qadir defal ndax yonentu sallallahu alayhi wa sallam ba muy dem arafa saxaaba yi ñii ña ngay def labbayk allahumma labbayk ñii ña ngay wax laa ilaha illallah waaye kenn ci ñoom ma wuteewul ak ndigal ak yonentu yàlla muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam su ko defee boo yeggee arafa xam nga yonentu ba muy dem moom dafa amoon fu ñuy wax namirata ak aranata ak arafata mu wàcc fii xutba fii jullee fi soog a dem ca taxawaay ba muy arafa yow it nga fexe julli ga fekk la fa nga déglu ilimaan ji boo ko defee ilimaan ji dana boole tisbaar boole tàkkusaan foofa da nga déglu xutba gi nga xam ne ilimaan ji dana xutba li jëm ci aj gi yëpp li ñu war a def bésu arafa muy bés bi gën a am solo ak buñ fa jógee yee ca topp yee ca topp yee ca topp foofu ngay yendu gannaaw wàññi gi nga wàññi julli boole ko muy tisbaar ak tàkkusaan ngir lan ngir nga am waxtu ba guddi ngay toroxlu di ñaan di toroxlu di ñaan wax ne ne yonentu sallallahu alayhi wasallam tàllal na loxoom foofu di ñaan ca kaw xaswaaw te xaswaaw rek ko attanoon bu fekkee ne wax yoo ngi wàcc ci moom sallallahu alayhi wa sallam xusuusiyatu la gu xaswaaw amoon ci gëlëmi yonent bi alayhi salaatu wassalaam dégg nga lu ma juróom-benni waxtu muy ñaan te maag yéen la doon ñaanal foofu la defee woon xutbaam googu bés boobu ci la alyawma akmaltu lakum diinakum wàccee woon yow aji aj gi def lifraat foofu nga yendu di ñaan ak toroxlu di zikkar ak jaamu sa borom ci xeeti jaamu yu bokkut ba timis jot bu timis jotee nag doo jullee foofu timis foofu ngay jógee ànd ak ajkat yi jëm musdalifa foofu ngay boolee ca musdalifa timis ak gee nuzulu musdalifa fi rujuina wàcc ga ngay wàcc musdalifa dafa bokk ci waajib yoo xam ne soo ko bàyyee fokk nga jangee ko deret waaye arafatu gi nga jege moom dafa bokk ci farata yi nga xam ne soo ko bàyyee aj gi moom yàqu na alxaju arafatu sallallahu alayhi wa sallam ko wax foofu nag mën nga faa wàcc boo no boo noppee ca wàcc ga am nga wujub ga am ci borom xam-xam yi ne danga faa war a fanaan ndax yonent dafa fanaanoon lu dul nga am ngant waaye ci malik yetu yi wàcc fa rek mooy waajib jullee fa timis gee ñu bëgg nga so teel a tëdd nag ngir bu fajar di jot rek nga jóg julli fajar ca njëlbeenu waxtu wa dégg nga dem ca masharul xaraam di fa ñaan di fa ñaan di fa ñaan ba bët set suba googu mooy tey la tabaski foofu nag ca ngay jógee yow ànd ak ajkat yi jëm minan boo yeggee minan li ngay nuyoo minan mooy sànni jamratul aqaba ak juróom ñaari xeer ba su tabaski juróom ñaari xeer rek la ñuy sànni ca jamratul aqaba boo sànnee ba pare yow dangaa def lifraat loj warut la waaye nag soo ko mënee sopp nañ ko nga loj sa hadiyu su fekkee ne dangay loj wala nga rendi su fekkee dangay rendi waaye du farata ci yow ni mu nekkee farata ci ki def tamatu ak xiraan soo paree nga watu bu fekkee ne góor nga bu dee jigéen nga dagg dara ci sa karaw nga dagg xam ngeen xadar bi ñu war a dagg muy sa kiw baaraam pol ya nga dagg sa karaw bu dee jigéen nga boo dee góor nga it boo daggee it baax na waaye watoo gën foofu nag yonentu sallallahu alayhi wa sallam nii la ko defee moom dafa sallallahu alayhi wa sallam sànni jamra loj watu soog faa jóge jëm màkk pour tawaafu lifaada waaye wax nañ ne bés boobu laajuñ ko dara ne ko jiital nañ ko wala dara ne ko yéexee nañ ko lu dul wax ne defal dara warut ci sallallahu alayhi wa sallam boo sànnee jamratul aqaba juróom-ñaari xeer dégg nga loj sa had yu te fi mu ne bu dee tey la dafa am ku la koy lojal te du farata ci yow yow miy def lifraat dégg nga nga watu su fekkee ne mën ngaa watu foofu boofu ko mënul nga dem ba Makka nga watoo fa def tawaafu lifaada muy tawaaf gi nga xam ne mooy farataay aj gi su ñëwut aj ga du baax boo defee tawaafu lifaada tawaafu lifaada nag dafa wuuteeg tawaaful qudum amut cal amut itibaaw amut wuññi mbagg yow góor gi koy def ci tawaaful qudum rek lañ koy defee waaye yeneen tawaaf yëpp amut loolu soo noppee nag ca tawaaf ga nga demati julli ñaari rakk ca gannaaw maqaama mbaa Ibrahima alayhi salaam gis nga bi nga jógee minan di tawaaf si bala ngaa tawaaf lépp loo xam ne xaraamoon na ci yow dagan na ba mu des jigéen ak rëbb ci li wax yi yenn borom xam-xam yi maanaam sëy ak rëbb su fekkee ne nag ñëw nga ba def si tawaaful ifaada lépp loo xam ne terewoon nañ la ko dagan na lan mooy lépp dagan na ba mu des jigéen ak rëbb mooy tere woon nañ la yére yuñ sol tere woon nañ la parfum tere woon nañ la dagg sa karaw tere woon nañ la dégg nga dagg say we yooyu yëpp mën nga koo def fi mu ne li nga mënul rek mooy sëy ak rëbb ci wax yi lenn ci borom xam-xam yi soo xasee def tawaafu lifaada nag lépp dagan na léegi lépp dagan na nooy def aussitôt dellul minan nga fanaan fa bu bët setee nga sànni jamra gannaaw zawal bés boobu nag ñetti jamra bu ca nekk juróom-ñaar lay ngay sànni muy 21 xeer moom ngay def tamit ca bés ba ca topp moom ngay def ca bés ba ca toppaat muy bésu fukk ak ñetteel bi bésu fukk ak benneel ci tabaski bésu fukk ak ñaareel ci tabaski ak bésu fukk ak ñetteel ci tabaski ngay sànni jamaraat yooyu xam naa ñu may ñu benn minute rek ñu yeggali mbokk yaa ngi woote bu fekkee ne nag ñaari fan rek nga def mooy bésu fukk ak benneel bi nga sànni ak bésu fukk ak ñaareel bi te bëgguloo faa def bésu fukk ak ñetteel bi fexeel ba bu la fa jant sooye bu la fa jant sooye rek fokk nga fanaanaat su la fa jant sooye wut nag am nga option fa man taajala fi yawmayni fala isma alay wa man taaxara fala isma alay waaye nag yàlla ba muy considéré mooy li man ittaqa soo defee lii nag yow mbokk mi sànni nga ñetti jamra yi ci guddi yi jamra yooyu ku ko bàyyi deret daf lay war guddi yooyu ku ko fanaanut minan deret daf lay war ku bàyyi benn ci jamra yooyule wala nga bàyyi leen lépp dara deret daf lay war ñaari guddi yi njëkk yi ku ko fa fanaanut wala li ëpp ci gud benn ci guddi ya jam deret daf lay war deret daf lay war dafa bokk ci waajibaat yi fii nag la sa aj jeexee bu fekkee ne danga war a dellu ca suba ga wala ca gannaaw suba ga fexeel ba li ngay mujj a def mooy nga wër kaaba gi tàggatoog moom su fekkee delloogoo fexeel ba bëril say jaamu yàlla waaye yonentu sallallahu alayhi wasallam noonu na li ngeen di mujj a def na nekk wër kaaba gi kaaba gi daal na nekk li ki ngeen di mujj amal affaire wala li ngeen di mujj amal affaire sooga dellu ca kër ya ci gàttal mbokk yi lii mooy aju koo xam ne dafay def ifraat su paree nag fii am na choix su ko neexee defi umra ndax aji pare na am na choix bañ a def umra su fekkee ne nag ñëw màkka daf koo jafe ah kooku na dem defi umra gannaaw aji su fekkee ne nag mu dafay lu ko yomb la li gën mooy mu wutal umra voyage boo xam ne voyage bu indépendant la ni nga xamee noonu la ko saxaaba yi daan defee alayhim ridwanullahi tabaraka wa taala sallallahu ala sayidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama
لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك tabarakallahu ay seconde moo ñu desee ñu ngi jéggalu duñ mën a jël ñiy woote waaye buñ noppee mën nañ ñu woo ci 347 596 2036 pour any question bu aju ci aj ji wala lu ko niru biidnillahi tabaraka wa taala ñu ngi ba ndokkeel waa ICFA yëpp rek ci tàmbali gi ñu tàmbali sama camp 2019 bi di ñaan suñu borom yombal ko yombalal xale yi yombalal mag ñi yombalal waa Amérique ak waa adduna bi arab yi